l'actualité c'est Touba Mbacké l'actualité c'est Touba Mbacké ndax nag ki waral bés bi moom moom moom rek moo am lool moom kese Serigne Touba bokk na ci euh, livre boo xamante ni juróon na coow ñu wax l'histoire générale du Sénégal man mii sax assisté woon naa cérémonie présentation livre bi ak le professeur ba Der Thiam et tous ses collaborateurs yi nga xam ne ñoom la bokkal con euh, concevoir boobu lépp euh, taal wala bokk taalif naal boobu lépp téere di téere yoo xamante ni ñu ngi ko doon jébbale ci pale mankaanum njiitu réew mi maa nga fa woon président de la république rafetlu ko ak topp yi tom yi nga xam ne jot nañ ko ci liggéey am yu ci desoon livre ba amul ay fan coow ne coob bay coow li bëri am indi livre histoire générale am delloo livre histoire générale wax ji mel ni tuleeg maale lenn rek moo ko waral mooy ay boroomi xam-xam lañ gaax dañ leen koy nangul ku xam professeur Ibrahima Thiam agrégé ak ñeneen ak ñeneen macha allah waaye nag comme yàllaa leen xiirtal ci nem jëm jànge famille Molière famille euh, Descartes famille Hugo famille ñooñu nga xamante ñu ngi ci tugal ñun nawlawuñ leen fii bañ demee bay bind taarixu réew bu Sénégal la nekkoon illa ak xamante ak li ñu waroon a def d'abord mooy boole ci ñi nga xamante ñoo nekk ci kër doom yi soxna yi on ne peut pas du Sénégal sans pour autant ñu def implication ñenn ñi nga xam ni ñi ngi ci les famille religieuses yi ñu xam fii ci xëbu Sénégal ndax Sénégal looloo ko mooñ loolooy keno yi ndax boo fi nee naa fi boo fi demee Ndiassane mel na ne tubaa nga dem boo fi demee euh, Tivaouane mel na ne Ndiassane nga dem kër kër doomu soxna boo fi dugg benn lañ kon boo bind ci histoire Sénégal mënoo leen ci génne aspe religieux li tax mu wax loolu nag mooy sosol ne waxoon nañ ci wax joo xam ne jëm ci Touba ak na mu bindoo ak maanaam mouridisme bi ndax sax Touba tudduñ ko ci livre bi ni ko euh, Serigne Samad euh, euh, Abdou Samad Serigne Serigne Abdou Samad Mbacke waxee moom Serigne Soxna bu Mbacke nga xamante ni dañu dañu dañu wax ci livre bi sa tudduñ ci Touba tudduñ ci màggal gi xam nga ne loolu moom mooy wax waxu nax sa gandax ma jàpp ne. mënoo tudd histoire du Sénégal sans pour autant que nga éveiller l'aspect religieux de ce pays te ku nekk xam ne ces famille religieuses la dañoo dañoo am benn benn benn rôle bu am solo bu ñu def fii ci xëbu Sénégal am fi taxawaay bu am solo suuxat fi jàmm ju am solo leneen ak leneen loo xam te jii Sénégal gàcce ngaalaama dañ koy sante mag ñu baax ñooñu waaw bay bind kay wax dëgg yàlla ci mouridisme xanaa di nga di nga di nga dem nag ca njabootu ñooñu di nga dem nag ci barabu kooku Touba bindoo ko ci bindoo ci màggal gi waxoo ci lenn nga ne histoire ngay bind parce que nag lépp mooy jàngi woon Molière ak Descartes ak ñooñu ak Hugo euh, ak Baudelaire ak ñooñu ñooñu ñun nawloo wuñ leen ñoo xam ne kuñ nawloo Cheikh Ahmed Foutiyou Tall Cheikh euh, Serigne Touba Khadim Rasoul Maam Baye ñas Cheikh Bou Kounta Ndiassane bamba woon a waa géej ah mbokk yi ku nekk xam ne ni màggal Tuubaa gi nii dafa dajek nawet bi a ah, ñu ni leen ay baas yu mucc ayib dëppook nag jamono ji ak nawet bi baas yoo xam ne day tëju fermé wu baas yu mucc ayib taaru lool tarafet waaye ku ci bëgg a am nooy def xanaa nga woote ci numéro téléphone bi 77 251 04 05 nga dem ci ci ci ci ci canaba ak fépp foo ci dugg dem Tiwaawan Alaaji Malick Si ñooñu la ñu nawloo ñun mag ñu baax ñooñu kon booy bind ci ñoom bu ngeen ciy bind yéen nasaraan yi dem jàngi woon nasaraan yi nga xam tekkuñu dara ci réew mi lu réew mi am ci musiba sax nasaraan see leen ko teg ngeen dem bala ngeen di bind ci histoire Sénégal dem leen ca ña suuxat histoire du Sénégal kon nag tuubaa am nañu fullee ñoom am comité scientifique bu am solo buy liggéey liggéey bu mucc ayib ci dimension yëpp nag moo xam màggal moo xam ak lu mu mën di aju gis nañ bu baax a baax ni nga xamante noonu la ñu taxawoo kon tey jii bu ñu demee bay bind ci histoire bi war nañoo dem consulter consulter parce que man fii rek laa mën a waxee ci comme point bi mu concerné parce que déggoo nañ fi sax waa kër ñaseen yi jugoon nañ ah, ci liñ fa tudd ak yeneen ak yeneen ñoom ay faute kese la ñu def seen livre boobu dañ ko waroon a taal sànni livre moom dañ ko war a taal xotti tereet dem bindiwaat fekk ji waat kilifa yooyu laaj leen seen xalaat ci mbir mi kon tey jii tuuba am nañu fullay rawdu rayaani bi nga xamante mooy mooy yor lépp lu jëm ci wàllum étude scientifique ak lépp luy jëm ci jàngat ak gëstu ñoom def nañ ci liggéey bu mucc ab bind ci livre blanc képp koo xam nag bëgg nga lis comme histoire bi livre yi desoon na am ngeen li mu ci war a rectifier ne leen coow dëgmali tuubaa ngeen jëli livre balan boobee nga xamante ni fësal nañ ko ndax diglu nañ bu baax a baax ki nga xamante moom moo di rek Serigne Euh, Sam Bousso mi nga xamante ni euh, wax na ci dégg nañ bu baax ki nga xamante moom moo di Serigne Bassirou Mbacke Abdoul Khadr wax na ci sëñ euh, abdu Samane Mbacke wax na ci mu nekk loo xamante ni mooy livre boobu ñoom dañ cee def liggéey bu am solo wax ci dégg dégg Touba ni mu bindoo wax ci jëmm ji taxawal Touba taxawal mouridisme wax ci lépp li nga xamante ni moo sos yoonu murid ay waaye bu leen ñu sosal yoon wi borom sos te bam koy sos tàgguwu leen kon bu ngeen di bind ci lu mel noonu. li laay wasoo jegaleen ña ko xam kon nag livre baa ngoog képp kuy murit nag laa wax man képp kuy murit dëggu topp ndigal gëm sëriñ bi demal nga jëndi livre blanc bi nga liir ko ndax lee ñu bindoon kat mën naa indi musiba ñu di ñu xam lool wax looloo xamante ni ëllëg suñu doom yi wala suñu rakk yi wala ñeneen ñi nga xamante ni ñooy avenir réew mi nar caa def ab gëstu dañuy kat boobaa warloo lool ak li nga xam ne mooy mooy mooy mooy mooy dëgg-dëgg yoonu murit ma jàpp ne tey jii lu bëri ci nasaraan si dañoo umpale ne am na loo xam ne que mi ngi archive nationale ñu nëbb ko Serigne dara am nëbbul lépp da ko bindoon ba mu leer victoire yi mu am yëpp dañ koo signé tubaab bi signé defetam kon amu ci lenn loo xamante ni daanaka sëñ Touba lépp boo xam dañ koo bind lépp lu mu def rek ba mu amee victoire ci sur le sur le champ la ñu signé tubaab bi waaye euh, saay-saay gi ñu saay-saay tax na daanaka lu bëri dañ ko nëbb ci ci archive nationale moo tax suñ ne ñett ñi rek ñoo ma xam te duñ ma gaaw ñu ne ko ñan mu ne ki nga xamante moom moo di tubaab bi tubaab bi moo ma xam te du ma ngoo wax parce que boo demee Archives nationales gis nga lañ fa nëbb mu ne néew bi nga xamante ni moom lañ dugal ci biir bàmmeel waaye tamit ëllëg yoo mel xiyaam muñ taxawee ci bés ba kon ñetti ñii la te duñ gaaw a wax ndax ku ne xam ne néew moom ci biir bàmmeel rek la mën a waxee. ëllëg yomal xiyaam taxawaay ba naka noonu kon ñett ñi ñoo xam te duñ ko gaaw wax kon sëñ Tuubaa xam nañ ne mbiram lépp lu ca waaye def lu ca bokk moom dana ko génne li sëñ Fallu Mbàkke waxoon rek lépp lu bokk Tuubaa lu mu guddi guddi maa yor lonk gi ma lonk mu ñëw fi nekk lu fi bokk lu mu guddi guddi ma jël roq bi roq ko mu génn Tuubaa kon bokk bu kenn taqal tubaa bu kenn taqal Tuubaa tubaa bàyyi leen Serigne Touba ak Toubaam ku ko gëm gëm ko ku ko gëmul nga gëmi la nga gëm bàyyi ñu Touba. Bamba woon a waajeej ah mbokk yi ku nekk xam ne ni màggal Touba gi lii dafa dajeek nawet bi a ah, waral ñu ni leen ay baas yu mucc ayib dëppook nag jamono ji ak nawet bi baas yoo xam ne day tëju fermé wu baas yu mucc ayib taaru loolu te rafet waaye ku ci bëgg am nooy def xanaa nga woote ci numéro téléphone bi 77 251 04 05